ca lam tàggatoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam war sagal ñu ci ngëneelam ñu dëkk ak ñoom ci kërug teraangaam mbokk yi yéen ngi fàttale ko suñu dars bi weesu ñu doon waxtaane leen ci dundub sunu yaay yaay ñi gëm yàlla ku dëggu doomi ku dëggu ka ku sell ka yàlla sellal ci asamaan setal ko te nit du yokkat ci waxtaane yaayam su fekkee doom ju baax la bu ñu baaxul it bëgg nañoo baax mbokk yi suñu yaay Aïcha radiallahu anha suñu waxtaan ci jaar-jaaram du jeex xanaa dañ cay lot gisoon nañu ci dars bi weesu ay jaar jaaram walla leen ci ay jaar jaaram waaye ñu taxawoon ak yéen ci gendeeku bu am solo ci wàllu jaar jaaram te mooy tabe mën a joxe yéen a ngi fàttaleku euh, misaal bañ ca joxe woon ci alal ju xam ne ñëwal na ko toll ci téeméeri junney dirham nga xam ne buñ koy gam-gam la ci suñu jamono tey dana toll ci ay million balaa jant so mu seddale ko ba ba ngoon jotee fekk dafa waroon koorog la ñu tiim seen ndogu lu yemaay eh, jànqam bi ne ko alal ji nga yor ji nga séddale yépp soo ci gindi sax sax dirham bu xam ne doon nañ ko mën a jëndee yàpp mu ne ko ba ma yedd boo ma fàttali woon ma def ko ba ma yedd boo ma woon ma def ko bi maanaa yegg na ci xër ci joxe ngir yàlla fu mu fàttee li kër gi aajo ci ndawal mbokk yi kan ngeen di nattaleet ci ñi ngeen xam ku yegg foofu rawatina ci ñi ñu jamono wante muy góor ñi wala jigéen ñi Aïcha tabeem yegg na ci fum ko juralee niñ ko waxee suñu làkku jamono fum ko juralee problème bu rëy a rëy mooy doomu magam muy Abdullah ibnu Zubayr nga xam ne moom la ñu mën a wax ne dëgg-dëgg mooy doomu Aïcha Abdullah ibnu Zubayr Asma bint Abubakar mooy yaayam yegg na ci fu Abdullah ibnu Zubayr ne Aïcha bu bàyyiwul ni muy def alal danaa ko xajir xam nga luy xajir xajir ñu ngi ko gën di def ñaare ku xam ne àndul ak xelam ci ni muy soppatee dañuy confisquer alalam dootul ca soppat waaye ñu ko cay jox lu tolloog ay aajoom waaye nag duñu ko seetaan mu cay soppat ak loxol boppam ndax xamut nu ñuy soppate maanaam xërte Aïsa yegg na foofu Abdullah ibnu Zubayr wax loola Aïsa ba mu déggee loola dafa ne moo ndax dëgg la Abdullah ibnu Zubayr moo ko wax ñu ne moo ko wax kay mu ne baax na warlul naa yàlla ne dootuma waxateeg moom dootuma ko tudd ba keroog dee dañu teqale su tax Abubakar ku ko bëgg a aaye tabe dana sotti ah Abubakar ni Siddiq ku ko bëgg aaye tabe joxe du sotti ndax xam nañ baayam alalam na mu toll woon ak lépp ni mu ko dépensé ci yàlla kooko ku ko bëgg ne sa alal doo defee nii dana yegg ci moom fu rëy waaye lu tax ma ne problème loola yegg na ci ibnu zubayr képp kum yaakaar ne bu wutee ci yow intervention nga tinu Aïcha dara dellu gannaaw ca gàddaay googa ñu juboo waaye loola tëkku ba mujj pexe mam def ñaari gaay la waxtaanat ci saxaaba ci taabiin yi ne leen damaa bëgg ñu ànd maag yéen ngeen ëmbaale ma ci seen malaan mi ngeen sàngoo taxaw ci buntu Aïcha ne ñu ngi ñaan ndigal pour yegsi su leen yegsi leen ngeen ne ko ñun ñëpp ñu yegsi mu ne waaw yéen ñëpp yegsi leen su ko defee lool dana ma may ndigal ma dugg si ci moom fekk du xam ne Ibnu Subayr mu nga fa ñu def noona bi ñu ñëwee nayoo ne ñun la dañoo bëggoon a yegsi ci suñu yaay mu ne yegg si leen ko ñun ñëpp ñu yegg si mu ne yéen ñëpp jox naa leen ndigal yegg si leen ndeke ibnu subayra mu ngi ca biir ba ñu yegg dindi malaan yi ibnu subayra ne tëll daal di ko langaamu jafandu ko di jooy di ko jéggalu aïcha di jooy moom itam ba malaanam tooy ci rongañ di ko fàttalil yàlla ak mbokk gi nga xam ne moom la ñu séq ñele itam di ci jàpp naan ko ragal yàlla nga dellu gannaaw ci gàddaay gi xam nga yonent bi sallallahu alayhi li mu wax ci gàddaay lu ëpp ñetti fan euh, di ko delloo si ba mujj mu ne waaye moom dafa niséroon nu muy def niséram ñooñu fàttali ko lii yonent bi sallallahu alayhi wax ci nisér ti moo leen ko gën a xam ndax moo leen ko jàngaloon mooy du ma menn mbir ma fekk ne lu dul loolaa gën lu dul kafaara naa sama nisër googa def la gën suñu Aïsa ca noona la mujj wax ak doomam jooja di ibnu Subayr waaye loola jaral na ko pour ñu xam kan mooy Aïsa loola jaral na ko mu yónnee yaman alal ju xam ne ñeent fukki jaam la ca jënd goreel ko te pourtant goreel benn jaam dooyoon goreel benn jaam dooy na ci dellu gannaaw ci niseer ndax kafaara bu booba waaye ñeent fukki jaam la jënd goreel kon yaakaar naa ne su fekkee nu muy def alal lañ ko sikkee woon juboo gi ci boppam defi na alaloo feeñaat na ca du tubaranke ku Abubakar jur yonent bi sallallahu alayhi wa yar la noonu la war a mel waaye ñun ñi bëgg a dëkk ak ñoom itam buñ yeggut ca ñoom it war nañoo jàng ci ñoom melokaan wu ni mel waaye bu ngeen seetloo tey tawat bi benn la gaa yi duñ joxe wala déet gaa yi dañoo nay duñ joxe waaye yow ndax yaa ngi joxe man bu ma wéetee dama naan gaa yi bu boobaa man kenn rek maa génn ci gaa yi yow it boo wéetee nga ne gaa yi dañoo ne joxe man mi wéetoon dugg na kon ñun ñëpp waaye kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kër Abubakar du noonu la meloon euh, Aïcha radiallahu anha bokk na ci li yéeme ci alal yooyu bu daan séddale mbokkam yi mu bokkatoon yonente bi sallallahu alayhi wa wolof di ko wax wujji ñooña lay njëkke ñooña lay njëkk a séddale séddale hinu ku xam ne dafay gërale ka muy jox ci kaw boppam soog a séddale ñeneen ñi muy sédd waaye Aïcha ni mu meloon ci tabe ci wàllu googu noonu la meloon itam ci nangu dëgg saa yu dëgg ñëwee ci kawam yaakaar naa ne ñun ñëpp xam nañu fitna bi dox diggante Aïsa ak Zubayr ak Talxa ci genn wàll ñu dajeeg Ali radiallahu anhu ca geneen wàll te mu siiwee ci histoire l'islam euh, maarakatul jamal xew-xew booba euh, suñu Aïsa radiallahu anha def na fa lu xam ne wax dëgg firi na la mu waxoon ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nëbbu dara ci alquran jotee na lépp ba jox ci misaal benn aaya ne su yonent bi su amoon lu muy nëbb ci alquran dana nëbb aaya booba mooy ban li ko yàlla subhanahu wa taala wax ci sootu ahzab ne ko wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdihi wa taxsha nnaasa wallahu aqwa an taxsha yaa ngi nëbb ci sa biir lu xam ne yàlla dana ko feeñal boole su yonent bi amoon lu muy nëbb bañ koo feeñal ci alquran ji yàlla wàccee ci moom kon dana nëbb aaya bi ndax yaa ngi nëbb lu yàlla di feeñal loola nga nëbboon feeñ weer gi la ci yàlla weer nga nangu koo feeñal saraxatan foofa la nangu dëgg ci sa ko bopp yem aïsa waxal yonent bi sallallahu alayhi loolu waaye moom itam ci maarakatu jëmal def na lu mel noonu ndax dafa ànd ak ña mu àndat ñu jëm booru Basra ñëw ba tolloo ak menn ndox am ay xaj yu leen di bow bi mu laajee ne ndox mii ñu tolloon man ndox la ñu ne ko ndox mii mooy ndox mu ñuy tuddee alxaw ab mu jooy jooy yu méttee méttee métti ne man xaw ma woon ne keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tooge ay soxnaam muy wax naan moo naka keroog bi xaj ya di baw kenn ci yéen ca dox ma ñuy tudd xaw ab xaw ma ne man lay doon ndax bu doon kenn ci ñun dana dana nettali li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay soxnaan ne bis a ngi ñëw ay xaj danañu baw kenn ci yéen sama soxna yi ci ndox mu tollu barab sàngam nga dund loola te dund ko ci dundin wu xam ne fitne la mu wër la ne loolu boo ko ñeppee sa euh, adversaire yi maanaa ñi ngay jàmmarloo danañ am ngànnaay bu ñu la yeeyee bu ñu la reexee ne yonent bi waxoon na danga def lii yaa ko def nga nangu koo génne sa gémmiñ ndax nangu dëgg romb na li mbokk yi dama naan waxuma nangu dëgg rombut fii waaye jafe na mu yegg fa loola tax na dafa doobu woon ca booba ne day wàññeeku du wéy la ko tax a wéy mooy la ko taxoon a jóg Aïcha radiyallahu anha la ko taxoon a jóg ci maarakatul jamal ijtihaad la woon mooy jàpp na njiitu jullit yi di Osman rey nañ ko ca tooñ deretam warta niin te jàpp nañ ne moom en tant soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa bu taxawee ci mbooloo fàttale tooñ googu ak nuñ ko war a régler loola dana am jeexit gu muy def ci nit ñi pour ñu nangu dëggu googu kon dafa jàpp ne dafay sotle ji dëgg loolaa ko yóbbu loolaa ko taxawee itam ndax ba mu doon wane day wàññeeku nit ñi dañ ko ne yow sa teewaay ak sa kàddu ci mbir mii yàlla man na cee defaree yàqu-yàqu yu rëy rëy ci diggante jullit yi kon mu jàpp ne na kon ngir lan ngir mën a defar yàqu-yàqu yooyu waaye ba ñu demee ba fa mu daje ak Ali seen taxawaay ñoom ñaar feeñalaat na geneen wàll ci nangu dëgg moom Aïcha radiallahu anha ndax awalan ali radiallahu anhu moom it def na ca mat gu mat sëkk ba mu gisee Aïcha daf ne kii dee seetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yeeyoowul lu dul orma ak teraanga fit na moo jolli euh, Aïcha mu ne Ali jekku nga rafetalal ci ni nga jéeg ko maanaam jékku nga gañe nga nekkal ku jékku ku gañe te rafetal ali radiallahu an boole ko ak yóbbal bu ma sëkk àndandoor yu doy sëkk pour mu delluwaat madina euh, moo tax ku mel ne xaafis zahabi dafay wax ne seede si aliyun seedeel aïsa lu mu doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njekk yu rëy ya mu def ca moom kàddu yu dëgg ya aïsa reconnaître le boppam ne taxawaayam bii njuumte la mu ne lii dafay wane lu nasaxal lii chia yi woote woo ak la ñuy askane aliyin ak aïsa ci ak noone sori xam nga ne Aïcha loola jural na ko saa yu jàngaat aaya boobu ci sootu ahsaab wa qarna fi na dafay jooy ba musóoram tooy ngir rëccu génn googu mu génnoon kon rëcc gu mat sëkk ci yëg ne juum naa mu nangu ne juum naa tuub ko jéggalu ko yàlla subhaanahu wa taala giiru dundam loola jural ko fu mu jàngee aaya yooyu mu jeexital ci moom yéexit yu rëy yooyu kon mbokk yi rikkuwaay nañu jàng ci suñu yaay topp ndoor sa yaay wax dëgg yàlla doom waxoon nañu ne yaay mooy écolom bu njëkk kon jàngee ci suñu yaay topp ndoo ko saa yu ñu juumee ñu nangu suñu njuumte ba mu mat sëkk nangoo feeñal dëgg gi ñi ñu xam ci suñu bopp te nit ñi xamuñ ko ku nekk xam na ne xadis boobu moom moo ko wax ñeneen ñi soog koo xamee ca moom waaye bu ko waxul woon ñu bari réeree ko amaan na ay moromam ñoo koy yëg ñoo xam xadis ba te xamuñu woon itam fekkewuñu itam foo ko xaj yi bawee ci maa u ab li ma bëgg a wax mbokk yi bu ñu xoolee suñu yaay jooju ci gii wàll dañuy fekk dëggantaan mu mat yaay waaye bu ñu xoolee itam aw dundinam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy fekk ne dundin wa même bu ñu askanee cofeer gu ràññeeku gu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaloon moom it danañu fekk ne cofeer googu mu ngi fees ci moom fàttale ngeen ci dars bi weesu bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne boo ma boo meree ak boo kontaanee danaa koy xàmmee ci sa waatin ba mu ko ne wa rabbu ibrahim ngay wax dafa ne waaye laa ahjuru illa asmak gàddaay gi rombale fa ma sa tur ma bañ a dong waaye bu ñu xooloon aaya bala ci sootu ba mu wàccee fa yàlla subhanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi ko yaa ayuha nabi qul li azwajik in kuntunna turidna alxayata addunia وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما yàlla dafa ne yonent bi waxal sa soxna yi ne leen su fekkee ne dundub àdduna ak ab taaram moo leen gënal kaay leen ma jox leen yóbbal bu doy ma bàyyi leen fase leen fasehin wu rafet ngeen de ngeen dem àdduna su fekkee nag yàlla ak yonentam ak kërug àllaaxira moo leen gënal na ngeen xam ne woy rafetal yi ci yéen yàlla subhaanahu wa taala dencal na leen pay gu màgg aaya bi ba mu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ci diisoog saxaaba yi ndax ah, dafa ci diisoog soxnaam yi ndax loolu la ko yàlla digal waxal ak ñoom diisoo ak ñoom laaj leen seen xalaat tànn loo leen Aïcha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma jàngalee aaya bi balaa ma koy jàngal daf ma ne maa ngi lay gaaral am mbir bu ci gaawantu balaan ciy dogal dara na nga ci diisoog say waajur njëkk daal di ko wax aay bi ni ngeen dégg ma waxe nii aay sa mu ne man yonent bi bi may gaaral lii ak ni mu ko waxee xam naa ne bëggu la ko ak waa këram maanaam teqale ko ak man xam naa ne looloo tax mu may digal balaa ma ci dogal dara naa ci diisoog samay waajur xam na ne samay waajur su ma diisoog ñoom ci teqale ko moom du nangu du ñu nangu duñ ma jox xel loola waaye man itam maa ko jiitu ma ne ko yonent bi ndax ci yow laay diisoog keneen des ak yow ak ñàkk des ak yow ndax loolu moo soxla ma ciy diisoog keneen ba sama waajur sax du ma ci diisoog kenn man yàlla ak yonentam laa tànn waaw loola soxlawul ma ciy diisoo kenn ah foofu kan la fii jigéen ju jullit ju gëm yàlla ju yaru ji ci ron malaanum yonent moo tontoo tontu boobu waaye nag gannaaw gi mu wax kàddu gu xam ne jigéen ju nekk ak ay moromi jigéenam lañ jigéen juy wujjee mu teg ca mu ne waaye nag yonent bi maa ngi lay ñaan sa yeneen soxna yi koo ci diisoot bu la laajee man lu ma la tontu bu ko ko wax foofa moom derati wujji moo fa feeñ waaye yonent bi sallallahu su fekkee kàddu gu njëkk ga nit ki doon wax ak soxnaam la bi ko Aïsa waxee lii tontu bay ñëw yónnent ba la ndax bi ko Aïsa waxee wax ji daf ko ne déedéet man yónnent bi yàlla laa du ma war kenn du ma laaj loo tànn lu dul wax naa ko ko gis ngeen moom it du nëbb yële lu Aïsa tànn ñaareel ba du wax Aïsa uuhu bu weteeg ñële it wax leen lu Aïsa tànn waaye dafay leeral Aïsa léegi ne ko li ngay wax bu ma ko def danaa ko def ku laaj ci ñoom loo tànn danaa ko wax li nga tànn kon mbokk yi lii dafay wane suñu yaay ji fan la toll woon ci ràññi fan la yàlla yonent bi tollu woon ci xolam euh, loolu dana feeñ ci même yonent bi sallallahu alayhi su nekkaan ci guddi di julli yonent bi sallallahu alayhi xamoon na fi mu toll ci moom tax na dañu daan toog tëdd ci lal ba yàgg mu ne ndax Aïcha danga nga ma may ndigal ma jaamu sama borom ndax danga ma may ndigal nga bàyyi ma léegi ma jot jaamu sama borom ndax dana ko wax ne ko euh, fi nga toll ci man doo ma bàyyi ci lal bi man kenn la ndax yàllaa tax mu bëgg yonent bi kon la muy tëccal ci yonent bi dafay fekk mu tolloog la mu mën a am ci teewaay bi waaye la yonent bi jëmale ci boromam du ko gàllankoor mbokk kii ñu bàyyi xel foofu loolu même ñun góor ñi dama koy wax kenn ci ñun mun na xëy soxna si ne ko ah tey de altine yi dama bëggoon nga may ma ma woor na ngay woore ah te man maa ngi aaye fi ci yow ah? yaa ngi war a togg sama añ sama attaaya ku koy kii sama nangam sama da bàyyi ba ma ñàkk fee aay mbokk mbaa bu boobaa jiitaluñ tuuti bakkan naam yaa ko moom sa cër la boo ko bañee mayee wàññiwul dara waaye nag bul fàtte na yow danga war di ñaaxaate ci ak jaamu yàlla da war di sawarloo ci jaamu yàlla yow kay wax dëgg yàlla la nga waroon jéem ba mu la tàggoo loolu ti banoo woor ak moom itam nga waajal ko tuuti as dogu boog su xam ne da nga ko bëggalee ne ko kontaan naa ci jaamu yàlla gi nga def su fekkee loola mel nga ne Babacar Sall manoo ko nga xam ne manoo ko waaye yéene sax moom def nga ko kay su fekkee yéene nga doo gàllankoor naka noonu mbokk yi ñu jàngee ci kon boo nekkoon ak sa soxna ci lal bi ba yàgg mu ne man de damaa bëggoon a jóg ma Euh, julli ay rakka euh, damaa xeme moon daal jóg julli ci guddi gi yaa axi loolu bu mu sa saddit bul dem naan ko yow daal yaakaar da ngay ay cours yi yu léegi ah naa même buy suivre cours yi wali yi suivre cours yi wali moo gën suivre wayu di wala déet suivre ay cours yi wali yi moo ay cours wayu wala déet kon bàyyi ko mu siiwur kuriwal yi ndéem yonent alayhi wa sallam mooy tëdd ak soxnaam mu ne ko ndax da nga ma may ma jóg jaamu sama borom soxna sa bëgg lool ci loolu ne ko du ma la gàllankoor bëgg naa jege waaye nag du ma la gàllankoor ci waxtu nga jaamu sa borom bu yonent bi alayhi wa sallam taxawee jóg di julli suñu Aysa dafa doon yegg ci mujj di yërëm yonent bi sallallahu alayhi wa ci taxawaay ba di jooy ci loolu yërëm ko ba ci jooy mu ngi nettali benn guddi nee na dem naa ba euh, ci mbaadu yonent bi daf fi nekkatut may raas ne bi dafa lëndëm may raas sama loxo ba sama loxo tegee ci ay tëstënam maanaam ay ndëgguy tànkam fekk mu ngi sujjóot naan اللهم إني أعوذ برضاك من سقطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي yàlla man de maa ngi làqu ci sa ngërmande ngir nga musal ma ci sa mer maa ngi làqu ci sa jàmmal ngir nga musal ma ci sa mbugal yàlla man de manuma matale tagg gi nga yeeyoot ci ñu tagg la manuma ko dayal yàlla daal man maa ngi lay tagg ca na nga taggee sa bopp suñu Aysa mu ne bi may daj ay tànkam ci sujjóot foofu laa ko fekk ak ay jooyam nga gis ne moom bi mu bàyyee yonent bi sallam taxul la yonent bi sallallahu alayhi ci lan la nekk waaye ànd ak loolu itam fa mu nekk ak la mu nekk mu nga koy jéem a mokkal ngir leen ngir jaamoo ko boromam li wan ñu yoon bi suñu Aïsa jaaroon ci xam-xam moo tax euh, Masruq dafa doon wax ne xam-xami jigéen ñi ñépp buñ ko dajale woon peese ko ak xam-xamu Aïsa kon xam-xamu Aïsa moo leen di ëpp Euh, ku mel ne Urwatu bnu Zubayr wax na lu mel noonu ci ne Aïcha li gënoon yéeme du xam-xamu diina bi rek waaye boo ko làmbee ca wàllu askani arab yi mu gën caay raw nam xamee woon askan néewoon na ko ko ca jot waaye loolu yëpp tumaraanke woon nag xam nañ baayam bokkoon na ci ñi gënoon a mokkal askan ci euh, Quraysh naka noonu ci wàllu woyu arab yi wàllu chaar noonu la ca meloon mais fi ko gënoon a jaaxal mooy wàllu tëbb wàllu médecine ni ca Aïsa meloon mu ne fii moom yegg naa ci laaj ko fan la ko jànge ndax li moom génn na kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu ay wax yu la génn na la bu fekkee ci bàyyam waaye ñu yëg yitte ji nekkoon suñu yaay Aïsa radiallahu anha lan la ko wax mu ne ko man dama daan feebar ñu may tegtal garab ma takk ko dégg ku feebar ñu tegtal ko garab ma mokkal ko gis kuy faj ma xam la muy faje ci yii laa topp di ko garde ba tax ma xam ci li ma ci xam mbokk yi ndekkee bu ñu naan jigéen du dara ah, ah, ah. na fekk ne jigéen ja moo defut boppam dara waaw na fekk ne jigéen ja moo defut boppam dara waaye kay jigéen ju def boppam dara mën raw ay junde junde góor moo ne loola woykatu arab bi tënk na ko ci benn euh, kàddu euh, mu ne wama euh, ta'niisu wama ta'niisu lismi shamsi عيب ولا التذكير فخر للهلال وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال mu ne jigéenal gu turu jant nekk lu ñu jigéenal ci làkku arab xam ngeen ne français mooy wax le soleil góoral ko waaye bu dee arab jant ni mu ko tuddee daf koo jigéenal sofaan ba diggante français ak arab bu dee weer wi soog a teru français la koy wax waaye arab lune boobu di soog a teru moom daf koo góoral waykatu arab bi nag mu ne ah, jant bi dee jigéenal giñ ko jigéenal juralut ko benn ayib bu ne tëll àdduna bi yëpp leer waaye weer wi sa nga fent góor giñ ko góoral joxut ko genn puukare da xool ngandu ba sonn boo sàggane li ëpp ñi nit ñi duñ ko gis suñu Aïsa anha kon moo doon jant booba ci kanam góor ñu baree bare bari mbokk yi suñu Aïsa bu ñu koy xool ci wàllu xam danañu fekk ne bariwaan na aaya taxaw mu taxaw sancaa xëccoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi maana dëgër ci position lu dul ba ko ko yonent bi leeralee ngir lan ngir déggin wam ca am ci misaal euh, keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa ne yawmal qiyaama amul kenn ku ñuy régler lu dul danañ ko buggal ay sa darut de nangu dafa ne déet lu tax yàlla subhanahu wa taala wax ne ci surtu inshiqaq amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira ku ñu jox téeréem téere jëfam ci loxo ndeyjooram keroog danañ ko régler régler bu yomb mu ne yonent li kay régler la te borom duñ ko buggal yonent bi ne ko déet Aysa da nga xamut kooku du régler ak gaaral la ak gaaral gu ñuy gaaral rek la waaye man nuuqisa alxisaabu azib ku xam ne dañu discuter moom nañ ko régler lii nu demee lii nu mu demee fokk ñu buggal ko yaakaar naa ñun xam na ñiy tukki ci aéroport xam nañ ci dara ku duwaaj bëgg nga jàll dafa naa la ubbi rek nga ubbi mën a jëlab jëlab rek na la tëjal waaw demal jëlab jëlab jooju ne la tëjal ak gaaral dong la waaye bu demoon ci taatu walis wa rek lu mu la jàppee moos ku tukki ba wàcc aéroport lu la duwaañ mën a coller motif ba jàpp la jafoo ko kon li ma bëgg a wax fii mooy Aïcha aaya doon na taxaw wala yontu bi wax ci mbir mu génnee ca moom lam ca dégg loolu war it njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa ak yaatu dënnam tàggat njabootam ci ñu am àq di dégg waxi yàlla déggin wu xam ne ëllëg dana leen jariñ waaye soo tënkee tëj bunt yi ne budul nii rek nii la bu boobaa xel yu baree bari danañ mujj surux kon suñu Aïsa radiallahu anha ca ñooña la bokkoon euh, bu fekkoon ne dañoo dellu ci dundinu suñu Aïsa radiallahu anha ci wàllu jaamu yàlla ci aji makka ci omra danañu yëg ne même gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xulafaa rashidun ya doon nekk dañu leen doon tàggu ñu waajal leen pour ñu dem jaamu ji yàlla subhanahu wa taala ca néegam ba ni nga xamee ne it li të li ëpp ci góor ñi tey muy weeru koor fukki fan yu mujj ya ñu i'tikaaf ko ci néegu yàlla bi ngir jaamu yàlla subhanahu wa loolu ni mu tëyee góor ñu baree bari suñu yaay Aïcha ak ay moromam ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañu doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi ci weeru koor di itikaaf bi yonent bi àdduna itam ñoom dañu continuer woon di itikaaf ci jàkka ji ngir jaamu bi subhaanahu wa taala dana leen yéem ci mata sëy dëggantaan wala sax ma fi ñu soo ko daganalalee sëy ci ñi nga xam ne daganal nañ njaalo ci ñu jiitu loolu toujours dama koy wax ne lu tax ñuy attaquer l'islam ci lu ñuy tuddee mariage précoce te mooy lu jiitu fukki at ak juróom-ñett ba pare ñoom ñuy légaliser prostitution précoce lu ko def mooy juunu ak juutal buñ juutal àtte yàlla nekkoon jigéen balaañ koy maye ba ta mu amee fukki at ak juróom-ñett ma ne suñu ah, Aïsa foofu la ñàkkee jëkkër foofu ñu noon fa la jigéen tolloo ci war a sëy foofa la ñàkkee jëkkër foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ndax fàttewuleen ne ci atum ñaareel ci gàddaay gi ca lañ ko jébbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu toll ci juróom-ñeenti at yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ci fukki at ci gàddaay gi kon ñaata la ah fukk fukki at ak juróom-ñett fii la suñu yaay Aïcha ñaata at dund fi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeen fukki at ak juróom-ñaar waaw dund fi gannaawam ñeen fukki at ak juróom-ñaar ndax mu ngi génn àdduna ci atum juróom fukk ak juróom-ñaar ci gàddaay gi ci li gën a fés ci waxi boroom xam-xam yi euh, suñu xoolee loolu mbokk yi dañu gis kon ne dund bi yow ñaata at la ah de juróom benn fukki at ak juróom su fekkee ne dangaa dugal damm-damm yi maanaam manqué manqué yi soo dugalu damm-damm yi day nekk net juróom benn fukki at ak ñett yi yonent bi sallallahu dundoon ma gis kon diir bi mu sëy gën a tuuti fuuf diir bi mu ñàkk jëkkër waaye diir boobu yépp ci lan la ko def ci jàngale la mu jàngoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci jëfee la mu xamoon ci jokk mbokk ci gindi xeet wi ci ci ci yu man yu kenn mënta wax nu mu toll muy kan kooku muy ki nga xam ne bis bi yonent bi aaye ci moom ci bopp yonent bi nekk ci dënnam ci biir néegam taflitam mujj ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu kooku moo dund dundin woowu muy mbir yu xam ne amut ci benn bu xam ne doomu aadamaa ko tànn tànn ah bis kii soxna sii laay mujj aaye kan moo ko mën a tànn tànnal boppam yàlla rek bi may faatu fii laay nekk ci moom yàlla rek naka noonu taflit yi loolu nan li ma wax nan la amee mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si yaay Aïcha dafa ni ci yoor yooru altine ci bis bu xam ne bisub aayam la mu ngi ci néegam bopp yonent bi mu ngi ci dënnam Abdurahman ibn Abubakar radiallahu anhu romb yoor ab socc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toftal ko bëtam ma gis ne daf koo soxla ma ko ma jëlal la ko mu yëngat bopp bi ne waaw ma jël socc bi ci Abdurahman raxas ko yéeyal ko ko ba mokk ma jox ko mu ne yonent bi salaa sallam bomb ko bombin wu xër wu xam ne mosu maa gis mu socc socc hin a fetee noonu ci jamono boobu nag man maa koy ñaanal ñaan gëm a dégg mu ne Jibril daf ko ko daan ñaanal su feebaree te léeg-léeg moom bu feebaraan mu koy ñaanal boppam ba mokkaloon naa ko ma ko koy ñaanal waaye li ma seetlu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam feebar bi ñaanalul boppam ñaan googu mu ne ci socc bi rek ma gis mu aj bët yi xool ci kaw ne allahumma fi rafiqil aala yàlla ca àndandoor yu kawee mu ne ma xam ne yonent bi tànn na ñu dul ñun ci fii la ak ruuxam wadd sama taflit yi ma yéyee woon socc bi ba mu mokk moo mujj ci gémmiñam mu bombee ko gémmiñam mu génn àdduna du lool waaye itam ci néegam moom si yaay Aïcha radiallahu rob yii yëpp tànnee fi yàlla la ndax rob ga même du wut coobare nit ñi ndax dañu doon weerante fu ñu koy rob seydna abubakar radiallahu anhu moo leen ne yonent bi déggoon naa muy wax ne yàlla subhaanahu wa taala du jël bakkanub yonent lu dul fa mu bëgg ñu ko place ba mu ko foofa lay jëlee ak ruuxam loola tax na dañoo randal lal bi gas daal di ko rob foofu waaye mbokk yi kan moo xalaat teraanga ji toll na diw sàngam ñun ko suul ci wetu baayam ak jëkkëram teraanga ji toolu noonu nga xañ ko sa bopp ngir maye ko kan moo xalaat tabe gu mel nii pourtant suñu Aïcha loola la def bi amirul muminin Omar ibnu Xataab radiallahu di bëgg a génn àdduna gannaaw biñ ko jamee ba mu ñàkk yaakaar ci boppam mu yónnee pour ne nañ ko ñaanal Aïcha ci néegam pour mu may ko ñu sul ko fa ci wetu ñaari àndandooram yi di yonent bi ak Abubakar bañ ko ko waxee dafa ne palaasu benn bàmmeel moo fi des sama bopp laa ko bàyyi loon waaye bis na tey danaa ko xañ sama bopp ma jagleel ko ko moom amirul muminin mbokk yi tabe bu fekkee am na wàll gu muy feeñ ak gum feeñ rek tabe néew na bu fekkee dëggu na ci fépp lay feeñ mbokki yi yaay jooju ni ngeen ko déggee ci atum juróom fukk ak juróom ñaar ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tàggu àdduna tàgguwaay bu xam ne kenn weerante wut ne dafa tàggu àdduna ngir dem ci dund bu gën a ndax ku mel na Amar ibn Yaasir radiallahu anhu doon na wax ca maarakatu jamal boobu ma doon tudd sànq ne maa ngi seede ne Aïsa soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci àdduna ak ci àllaaxira amma xew-xew bii ñu séq ak moom nekkul lu dul natt bu ñu yàlla nattoo rek naka noonu bi mu demee ba toll ci e, nooyam yu mujj feebar bi ñu yàkkee ñàkkee yaakaar ku mel na Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma bi mu ko tiimee daf ko ne yow suñu yaay na nga bég te xam ne ci yiw nga nekk gannaaw bi mu ko laaje nanga def moo ne maa ngi ci jàmm su fekkee ragal naa yàlla moo ne ko incha allah yaa ngi ci jàmm xamal ni fi mu ne dara sa diggante ak nga dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak soppee lu dul rek rooxo gi teqale ko saw naam lu tax mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaaree nañu ne soxnaam yii ci àdduna ay soxnaam lañu it ca àllaaxira haa isa bokk ca xejje yooye yu gën a ràññeeku ñooye ma ne ci boobu dat la tàggu àdduna ngir fekk ji soppe booba di soppe soppe yi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi jigéen ju sell ju baax ju ragal yàlla ju laab ji jigéen ju alquran setal comme ni ko ko ibnu abbas waxe woon ne ko bégal te xam ne yàlla moo la tànnal yonent bi kim gën a bëgg la def mu bëgg la mbëggeel gu gën a ràññeeku te yonent bi daawut bëgg lu dul lu sell lu baax yàlla setal la ci alquran setaleen gu xam ne amul genn jàkk ju xam ne danañ fa yëkkate alquran di ko jàng lu dul ne jàng nañu fa setal gi la yàlla setal maa ne soxna su mel nii ndax xel dina nangu nit ne ci islaam la askano gàddu làmmiñam di teg ci moom kàddu yu ñaaw yu mel ne yi ngeen di dégg si ay wax jombe naa man may baamtu kàddu yooyu maa ngi foog ne ñàkk amul kenn ci lu am na lu mu ca dégg waaye dama ne kàddu yooya ndax yelloo na ak kii ngeen dégg te wallahi summa wallahi ñoom suñu mellalee Aïsa nu wuutee ak nii ngeen dégg ñu mellalee ko amuñu weerante nañ ko mellale mooy ay kàcc ndax nii ngeen dégg ñu mellalee ko ci duruus yi yàllaa ko ko mellalee ci alquran yonentam moo ko ko mellalee ci ay sunnaam ànd ndooxi yonentam ñoo ko ko seedeel ba ci ay wujjam sax yéen a ngi fàttale ko kàddu ga Zeynabu bint Jaxs waxoon bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaje loo xam ci moom dafa ne yonent bi damay aar sama nopp ak sama bët xaa isa xamaluma ko ludul yiw mbokk yi seede soosu la ko taabiin yi itam seedeel kon bi maanaa jullit yi ñi ñu nangu seenum jullit yépp laab gi ak sell gi alquran ak hadis seedeel ko moom lañ ko seedeel kon ku seedeel ci moom lu dul loola nan ko seedeel yow yaa ko mel naam su fekkoon ne xaqan ñoom li ñuy wax dëgg la ñu ne ah aliyun la ñu bëgg ak njabootam di ko sotal waaye waaye ni Aliyun diggee diggaale ak Aïcha dégg ngeen ko léegi ni ma ko waxee ci maharakatu jamal te nag gannaaw nangu nañu ne Aïcha soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ba ba muy génn àdduna benn ci ñaari rekk am nit ki nangul Aïcha lii mu dégg yéegee ko ca martaba ba ko yàlla yéege walla nit ki génne boppam ci liste bi ñi gëm yàlla ndax alquran a ko wax yàlla wa azwaajuhu lu ci tew ah annabiyu awlaa bilmuminina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum yàllaa ko wax suratu ahzab ñi gëm yàlla yonent bi moo leen gën a yeey même ci seen bopp nu yonent nu ñu yeeyee ci seen bopp waaye nag nañu xam ne soxnaa yonent bi moom seeni yaay lañu kan san soxna moo roow soxna si nga xam ne ci dënnam la faatoo ndax kooka am na lu ko teqaleeg moom lu jiitu faatu kon benn ci yaay rek nit ki ne Aïsa du yaayam Aïsa nangam ak nangam la mel nag wañuy butti wañuy wax Aïsa la nangam ak nàngam wax yu ñaaw yoo ñuy wax ñu ne Aïcha la kon du seen yaay kon lay laysu bi mu laysu bi mu su fekkee noonu lañ ko melal ne du seen yaay kon duñu muminun ndax yàlla nee na moom euh, soxna yonent bi yaay muminun lañ su fekkee nag gëm nañu ne Aïcha xaqan sunu yaay lañ ndax gëm nañu ne muminuuna lañ duñu man ludut nangul ko orma yi nga xam ne moom la ko yàlla nangul mbokk yi waxoon naa ci tàmbali dars bi ne suñu yaay ji du kuñ mën a waxtaane ak dundam kemtalaayu la mu yeeyoo ak lañ ca xam te lañ ca xamit nag ëpp waaye ak gaaral buñ ci doon gaaral la di ñaan yàlla subhanahu wa taala war sagam ñu dundin wu mel na dundinu yonente bi sallallahu alayhi wa ak ci saxaabaam warsagal ñu njaboot njaboot gu nangul yàlla ak yonentam comme ni njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu la woon ñu yeggut ca dégale ba yàlla subhanahu wa taala warsagal ñu ci ngëneelam ñu dëkk ak ñoom ci këru teraangam wa sallallahu alayhi wa wa alihi wa sallam ko dañ ko ne da ñu dàq la wallahi ñaari mbir moo am nit ki d'abord moo mën a tester ngëmam ci ne loolu nga xam ne diina def ko araamal ci moom su ko defee bañ dàq ko ci liggéeyam am na ci ngëm yàlla ak wóolu yàlla muñ gu xam ne du ko jural mu ñànki diggante mu boromam su fekkee ne bu defee loola amul dëgër ak ngëm ak muñ gu xam ne du ko ñànkiloo man ko jural sax gannaaw gi mu wuti ji alal ci fu araam wala dirible ak jàmbur yi te du ko delloo wala yu mel noonu ah su fekkee loolu moo fa nekk de dama naan euh, ñaari musiba bu ñu dajee na gàddu ba gën a woyof waaye waxuma ne am na bu ci dut musiba waaye nag bu ñuy tànn ci ñaari musiba ba gën a woyof dafa fekk ne ngëm ak wóolu yàlla ak wakkiirlu gu supporté loolu dafa amut wa illa yonent bi sallallahu alayhi wa li mu ñu xamal mooy nit ki du bàyyi dara ngir yàlla loolu ne yàlla wutalal na ko lu gën loola mu ñàkk waaye nag man ci masala yu mel nii dama ci prudent bu baax a baax déedéet du ma wax nit ki lu xam ne dana ko surxal ci kàmb ëllëg mu ëlbati ko ne Babacar Sall moo ma ko waxoon moo ma yóbbee li yëpp waaye nag danaa ko xamal ne lii dee bu dee ci àtteb dina moom daganut su fekkee ne am nga wóolu yàlla ak ngëm yàlla ak dëgër gu xam ne man nga koo bàyyi ngir yàlla ti nag wuti warsag wu dagan wu lew wa ca buntiyee ko yàlla daganaree loo dajeet ci ay conséquences say dundit na ko ko supporté li gëm ne yàllaa lay nattuwaaye da nga ca génn kon ne loolaa gën soo ca wóoluwut sa bopp nag ah moytul bi ci mu ah, ni ko waxee musiba wu gën a rëy waaye nag del sabab lu waale ngir saa yoo amee noo ca génne nga génne ci lii daal laa ci mën a wax wallah